Aline descends s'il te plaît. maaleykum salaam. Aïcha Babacar. Xuma. Xéré. jabar ju On s'est marié. Madame Khoudia. On a eu un jëkkër. am nañ jëkkër madame Khoudia. parce que c'est du waaw. parce que c'est du waaw. <laughs> parce que c'est du waaw. parce que sët bi waaw. parce que am na jëkkër. jëkkër ju bees. on est mariés. on nous aime. yàlla dañ ko baral bi yàlla xamante ni si da ngeen doon toog naan Aïssa dama koy takk peut être perte ngeen. Aïssa dem na. perte ngeen Aïssa di nga bëri takk dana yoo joxe nag. Aïssa on peut on peut gars on peut. gars yi takk benn. takk dañuy woo am gars yi bu soolee célibataire ah, ah man commencé woon naa dajale ci cag cag bi. pour nga takk pour pour pour la. pour takk Aïcha. am fa gars yi takk benn dafa ma trahir. on t'a fente daal. t'a fente kaay foo ñu xoolaat loolu la la ah mais félicitations ah. félicitations félicitations yàlla doon seen wërsëg yàlla doon seen wërsëg ngeen am ci ay njaboot yu barkeel yàlla euh, yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm yàlla sàmm yow moom sunu xel dal na ci yow baax nga yaru nga tabe nga ah lii la la